su fekkee disponible na ñu jox ñu ko en attendant ñu bàyyi laaj yi nga xam ne ñoo fi jot a jaar <coughs> docteur mun ci tontu daal incha allah. Euh, jërëjëf soxna si maa ngi rafetlu bu baax ñi nga xam ni jot nañ fi jël kàddu euh, euh, indi fi ay question ak surtout ay contributions yu rafet. Mm-hmm. alsan Ba <coughs> wax na ni dévalorisation bi li nga xam ni moom moo tax jikko yu fi nekkoon démb yenn yu rafet yi jóge fi. Euh, ndax du colonisation bu fekkee colonisation la colonisation bi nan la nan la jaaree c'est vrai que wax naa fii sànq ne coloni mode colonisation administration bu bu français yi bokkul ak bu anglais yi parce que nee naa français yi ñoom bu ñu ñëwee euh, dañu jël alal ji parce que loolu daf leen taxoon a jóg koom-koom bi nga xam ne moo nekkoon ci réew mi daf leen taxoon jóg dañ koy jël mais biñ ko jëlee tamit dañu jéem a yàq euh, lu rafet li fi nekkoon def fi seen bësu seen yëfu bopp loolu dañuy jaar ci école école bi nga xam ni moom la ñu defaroon dañ ci jaar euh, ak yeneen façon yi nga xam ni utiliser nañ ko pour mën a fexe ba ñi fi nekkoon démb booba ñu fëkk seen ruu ba léegi sax tubaab bi mi ngi ne ci loolu mais li nga xam ni aussi dafa waral jikko yu rafet yu yi fi nekkoon démb dem ginnaaw boo jëlee école colonisation mondialisation nga teg fële dafa am yi nga xam nag dafa dellu si ci ñun Euh, bi ci njëkk bi ma mën a wax moom mooy la famille kër gi en fait kër la famille dafa nekkoon fi nga xam ni bu njëkk ci lañ daan yaree nit ki taaral ko taaral bu ma doon wax waxuma taaru yaram mais taaral def ci moom yenn jikko yi ba nga xam ni bu génnee ñu xam ni fi ci kër gi la jógee mais euh, kër gi dafa am yoon bu mu daan jaar bu fekkee yaa ngi jàng l'enfant noir bu Camara lay gone gi dafay wax ni heureu añ ak heureu reer sama yaay daf ma daan tiital di ma wax ni loo mënti jàpp ba nga ñëw ci kër gi mu ni bu ma ñëwee ci kër gi bu ñu ndab li daawul mukk ma daal di dem beru dafa bëgg ma toog ak ñëpp ci ndab li nee na sama yaay lim daan njëkk a toppatoo mooy ni may toogee toogin bi daf daan fexe ba toog bi may toog nekk toog bu sell toog bu yiw toog bu jekk mu ni bu ma toogee ba pare mu ni ma ndab li na nga ko jàpp ak sa loxo càmmoñ warul bouger bu ma jàppee lox ndab li ak sama loxo càmmoñ mu ni sama yaay ni ma sa loxo euh, ndeyjoor rek ngay mu ni sa loxo ndeyjoor boobu na nga fexe ba mu yem sa kanam bu lekk